Depuis la depuis pandémie nous sommes sur le terrain euh, sur les directives de notre coordonnateur et ministre de l'environnement et du développement durable Abdou Karim Sall euh, Nous sommes sur le terrain avec di def ay distribution gel ay masques et euh, ay lave-mains ci li nga xamante président de la République son excellence monsieur le ministre concrétiser à la base au niveau de la commune de Mbao et au niveau du département de Pikine nous avons ay matuwaay yu mat jox ko ndaw yi ñu porter ko pour au moment que président joxe na woté na appel bobu ñu wuyu ci lolu ñu dem sur le terrain xamal euh, population yi li nga xamanteni mom mo nek fièvre bobu mais également ñew leen joxal jox leen li nga xamanteni ni mom lañu la ñu nga xamanteni pour ñu jàppale ko ñu jàppale ko population yi. fi ñu ciblé tay garage garage taxi yi ñu taxaw ni tay la mu nek garage bi nga xam mom mo nek ci si arrêt jumaa euh, benen bi poste gendarmerie bi nga xamanteni mu ngi door ubi yagul euh, sous les euh, sur l'instruction du du du ministre mom mo ñu jox ndigal pour que nañu ñew tay ci garage bi fi ñu ñew ci gendarmerie bi aussi ñu démal si jumaa ji trois points yoy moy points yi nga xamanteni moy ay points cible yi nga xamanteni ñom lañu wara satisfaire tay yaakaar naa ni ñu ngi jël ñu ngi jël les populations en témoin ñom gis nañu ne depuis le début depuis le premier jour bi ñu déclaré premier cas Covid 19 au Sénégal toute la jeunesse les femmes les sages du parti nous ñëpp lancé sur le terrain pour répondre à l'appel du président de la République Nous sommes le ministre de l'environnement et du développement durable Ce ñu def nii la euh, cas yi nga nous, chaque week-end nous, dafa tomber nous, ces accusations nous, ngi mu ngi nous, nous, avons kaw suñu kilifa ñu jàppoon ne ñun amuñu won jot pour ñu tontu leen pourquoi amuñu leen amuñu won jot bi c'est parce que ñun ñu ngi nek sur le terrain di liguey comme ni suñu kilifa di défé monsieur le ministre de l'environnement et développement durable